Maître Babacar Ndiaye 27 le 24 mars 2024 semaine yu rey système bi système bi ñëpp xam nañu dagg nañu baat yi ba baat bi dagg na dal yi fële léegi lenn rek moo ci def ñu jël système bi jël ko suuli ko loolu moo des te incha allah le 17 novembre daañu jël système bi suuli ko te lenn moo ci des jeunesse bi surtout yéen laay waxal L'avenir du Sénégal vous appartient. Si on parle de référentiel des politiques publiques, 2050, on s'adresse surtout à la jeunesse. Donc le président de pense à la jeunesse. Le président de la République, il pense à la jeunesse. Donc il y a le 17 novembre benn ñu jëlee ci système bi incha allah jël réew mi liggéey ko teg ci yoon wala yëpp mën a am liggéey wasalaam